jooguloo réeru employabilité ak crédibilité ah crédibilité employeur la grande sœur de Tima Mama waaw sama yaay ji doo ci wéetoon de laay ne ko fay li waaye bu ñu jaay doole waaye dëgg yàlla Aziz la bu ñu jaay doole garaaw Aziz fayal li wallaay nangu nañ Aziz nangu nañ laay nangu nañ dix mille ay oyofoo na lii waay non mais lii kenn mos ma jël ngi nii Air Sénégal. empereur looy daal yasaay yasaay. Sabiam. Sabiam. Parce qu'il faut nous remonter à la principale Vai, quer comer? ah kooku Thank you.

empereur bu ñëw la dana dana empereur bu ñëw la dana. réew mi yëpp empereur lañ koy bëri. réew mi yëpp empereur lañ koy bëri. kuran bi yàlla de ah empereur. trois zéro. trois zéro Modou Lo moo def. Modou Lo moo def ñooñu jël sa bakkan. ku def baax dulu. Ha? Kira saya cuma. Kira mentagal kan? Sudah mati. Hampir. Ibu mau mbër moomu mbër moomu noonu rek Mbadou. mille si daan trois mille six cent C'est terrible. daa am lu ñu yaakaar ne wax léegi sama yoon néew ci lu mu wax. monsieur bu soppeeku sama yoon néew ci waxuma. man léegi bàyyi naa wax. ah foofu si ne taxul na nga wax. waxatuma fenn jëf rek léegi jëf rek fanam bàyyil may jëf rek. dama def dafa mel ni vraiment su Balla Gaye dee taxawaat na. sa diggante ak ñagas taxaw na. waaw sama diggante ak ñagas. taxaw dafa nekkoon ci télé bi di saaga ay ndey di wax ay wax yu ñaaw dootu ko defat dégguma dafa doon saaga ay ndey di lu ne bàyyi ñaare ko taxawal mi ngi ne laaj ko ba pare ci moom mu confirmé nga ñëwaat ci man. dama maa ngi fi déglu loo xam ne. combat ñagas bu taxaw. man musuma jëflanteeg bawal bawal yi ba nga ne ñoo bi bari na coow. roi bi moom. non parce que da bëgg sa mbir yu yee. non man de kenn papa ji la jël na ma ah day jaay nit doole bi fépp xoolal lu may def ba taal ah Ndiaye kay mi ngi nii rek ah. njaay Ndiaye mi ngi nii rek. mais bàyyi kon maa ñagas taxaw ah. daa mel ni bool bool Balla Gaye la mais ñoo la mën doyoo. nga ne. ah kooku jëm sa xarit moom. ay ay guddi yu dugg ci saa. jàkkaam jooju ku dugg. diggante naa fi mu dugg de. aywa ñoom Pierre Ba. Eh, boo ko weddee laaj. Eh, eh. ah yaa ko fa am. yaa ko fa am. Cheikh Ahmed Tidiane. C'est qui lui? sa bopp par hasard. yaa ko nag. Eh, kii moom du yow moom. Soxna Ndeye Ndiaye maa ngi nuyu gis naa ñaani bu baax a baax. jërë ngeen jëf. nee nañ sa couronne bi daa ñaaw. non jamais empereur yi tamit. empereur c'est l'empereur qui parle. c'est l'empereur qui parle. expliquez le mot le mot. nee nañ dama la nopp de. nu mu fa demee noonu. benn benn commentaire. Eh, maa ya. la sa papa la. waaw ah. xam sama sama doom la de. Modou moo may takk. waaw gis nga. <laughs> yaa ko koy may moom neex. Modou Lo moo may takk. waaw gis nga. <laughs> yaa ko koy may moom neex. mais moom dóoru fi dóor bu war a damm baaraama. dafa doon métti ni waaw. man fi bo amul woon entraînement <laughs> barki yàlla so amul won entraînement fi ken waxatu ko fay ne ko ba pare mu génn mu ne ko du duggaatal <laughs> liggéey nga nak très cher ah ah Omar <laughs> arrête de faire genre tu es content Bien sûr que je suis contente. Toujours, je, je vis là.